société civile bi lan moo ko affaiblir. ak organisation démocratique yi yooyu yëpp il faut pas oublier nit ñi dañuy fàtte ni li leen mayoon doole dëgg dëgg dëgg mooy la montée de la gauche moo leen mayoon doole la montée du mouvement de gauche la montée des force de gauche et la montée de idées de gauche moo leen mayoon doole et boo seetloo bu baax affaiblissement gauche bi moo indi affaiblissement mouvement démocratique mouvement syndical ak société civile ñoo ànd. lan moo affaiblir les partis de gauche. est-ce que du seen connivence avec euh, le pouvoir. c'est-à-dire que mënuñu tudde connivence avec le pouvoir c'est-à-dire nit ñi seetuñu processus bi parti de gauche yi li leen indi au pouvoir bataille politique moo leen indi au pouvoir nit ñi dañ leen doon tuddee sax les faiseurs de roi loolu lañ leen doon tudd. jusqu'à une date récente gëj ngeen nekk. faiseur ma ne loolu yàgg na de gëj ngeen nekk faiseur de roi de. waaw waaw ma ne loolu lañ leen tuddee mais loolu nit ñi dañu xamul naka lay doxee parce que réew am na foo xam ne bu fa tolloo boo bëggee changement am na ay forces yoo xam ne foog nga dajale leen pour que changement boobu mën a am. boo leen dajalewul doo mën a am changement bu fekkee ni benn régime nekk na fi ba régime bi xam nga ni dafa war a jeexal boo bëggee mu jeexal bañ a yàq réew mi il faut que nga dajale force yoo xam ni mën nañ ko fi jële parce que xam nga ni yow kenn mënoo ko fi jële loolu la gauche fi daan def loolu lañ ko tuddee faiseur de roi su fekk du faiseur de roi c'est-à-dire processus progressiste pays bi moo ko intéressé woon régime bi dem na ba jeexal na mënatul def lu baax ci réew mi naka la ñuy fexe ba dindi ko pour que mu renouveler wu am ñeneen ñu bees ñoo xam ni au moins dinañ jéem a jëmal kanam réew loolu mooy travail bi Bush bi doon def léegi nag xëy na ci xeex boobu dafa am ñoo xam ni dañu fàtte suñu rôle maanaam am na yoo xam ni mënuñ cee ànd am na régime bi nga xam ni bu ñu àndeek moom ba départ ak moom am na foo xam ne bu fa egsee rek mënu ci ànd ak moom parce que euh, le processus de la première alternance mhm. euh, bu ñu waxalee yàlla gannaaw euh, le PDS qui est le maillon central les partis de gauche ñoom ñoo euh, mûrir affaire bi ñëw jël yëpp yekkal ko Ablaye Wade 2000 la gauche jouait un rôle important ngeen ànd ak Ablaye Wade affaire bi idylle bi matul sax ñaar ñaari at bu ñaari at sax bari na euh, ngeen lâché Ablaye wadd dem investir le champ de l'opposition 2007 la gauche boycotte euh, les élections législatives présidentielle bi la gauche était presque inexistante euh, ça s'est joué entre libéraux Wade gagne au premier tour ngeen dellu si waat renforcer des blocs aux élections de 2012 defe naa bi gauche bi noyau ci Benno Bokk Yaakaar ci la gauche bi Euh, perdre sa sa sa force d'influence PIT. Euh, commencé wul foofu LD. commencé wul foofu. da ngay seet même ab lay Wade am na ñu génn ak ñu des. mais les plus importants sont sortis. waaw ma ne am na ñu génn am na ñu des lu dëgg am na ñu génn am na ñu des am na ñoo xam ne dañ lii Ablaye nekki nekkee mënu ci ànd ak moom ak ñoo xam ne ab lay Wade épuisé góor li mu war a def. daal di fay des loolu jëkk na indi affaiblissement gauche deuxième étape bi mooy bi ngay wax. 2012 deuxième étape bi bala ñoo egg si foofu sax gauche bi dafa liggéey liggéey bu rëy. assise nationale parce que assise nationale moo préparé. la alternance waaw assise nationale. dañ fa demee aussi ànd ak Macky Sall bi ñu seetloo ni Macky Sall fii mu jëm bokkul ak fi ñu bëgg réew mi jëm ñu ne nañ arrêté mais am na sunu àndandoo yoo xam ni nee nañ waruñu arrêté